di jiital ci lépp kilifa gu mag gi nekkal fa sëriñ bu mag bi di Cheikh Mountakha di ndokkeel bu baax sunu bokk yu baax yi nga xam ne ñooy kuréel liggéeyal ku tedd gi di taxawal faaliyaat yooyu ñuy def ci rabia safar ñeenteelu fan ci safar te sëriñ Tuubaa tudd ko tudd bis boobu noo ngi leen ci ndokkeel bu baax di ko teg ci loxol sunu mbokk mu baax mi toog di sëriñ Galas Bamba mu àgg ci bokk yëpp di ànd ak ñoom liggéey bi ci sunu ci sunuy xol mawduu bi ñu bi ñu tànn ngir ñu laabirante ci ak bokk yi mooy mubaaya jaayante jaayante eh, daanaka moom lislaam léppam jaayante la jaayante ala samari wa am kilifa gu ne ci sa kanam bu waxee nga dégg boo noppee topp samaan wa taaxaten loolu la ñuy boole ci ma mabaadi lislaam la bokk kon jaayante ci principe lislaam la bokk gis nga xadis bu siiwoo ñu jële ko ci abu saidin al ak abu hurayra ñoom ñaar ñu daje ci yonent bi ne ida xaraja thalathatun fi safarin fal yu ammiru ahadahum ñett rek buñ génnee àndub tukki di dox nañu jël kenn muy kilifa ak ñett ña di wéyee ndigalam di bàyyi tereem kon loolu ci lislaam la bokk yonent bi fu mu yónnee ci saxaaba yi muy xare muy laneen dana sàkk koo xam ne mooy nekk amir ba jiite ñu jëfee ndigalam di bàyyi tereem gis nga ak googu mu yónni woon Seydina Abubakar mu ànd ak jullit ñi aji atum juróom-ñeent ci gàddaay gi ba mu demee ba ca yoon wa dafa yebal Seydina Ali fekk sur taw ba wàcc mu jox ko ngir mu jàngal ko jullit ñi ca ca Arafa Seydina Ali ba mu leen dabee ca yoon wa war ci gëléem gu ñu wax Adbaa gëléem di gëléemug yonent bi Seydina Abubakar ba mu ko ba mu ko gisee Seydina Abubakar ba mu ko gisee la mu ko jëkk wax mooy amir am ma'mur da ngaa ñëw far nar jiit jiite jullit yëpp wala da ñëw ngir topp la yonante bi wéyeelu tënkoon muy Abubakar jiitu ndax loola wéy wala dafa da ngaa ñëw ngir jiite yow tey mu ne ko bal ma amuur dama ñëw ngir topp loolu lépp li muy wane mooy jullit ñi mënuñoo ñàkk ku ne ci seen kanam loolu naka njëkk moom ci lislaam la bokk bu loolu amul rek taq bidaatu taqdimil aqli naq li mooy am mooy kenn ku ne wéyee sa xel lu gën a jub ci sa xel rek nga nga nga def ko loolu nag moo ñuy dugal ci mooy loolu amee rek mooy indi la yonente bi waxoon kullu muhdathatin bidaa wa kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar loolu mooy jiital jiital jiital sa xel sëñ Saali waxoon na ko ci waaraatam yooyu waxtaanam yu am solo yooyu nañuy topp ndigal te bañ a topp xel xel fu ne mën na faa dem waaye ndigal moom koy topp ndigal moom kon loolu gis nga yonente bi ci njaal bi ko lislaam dafa daan jaayante ba waa awsuug xaasar ñëwee dafa ba jaayante ak ñoom muy bayatul aqabatil ula wa thaniya kenn ku ne mu jaayante ak ñoom ci topp ko jëfee ndigalam bàyyi ay teram jullit yëpp noonu la ñu def ak moom ba ci jigéen ñi jigéen ñi mbooloo la ñu woon jaayante ak bi sallallahu alayhi wasallam ba ci gone yi gone yi wax nañ ne ibnu zubayr abdullah ibnu zubayr moom muy jaayante ak yonente bi fukki at la am kon kenn wërta xi wala juróom-ñaar at sax am na ñu ne moom la am kon kenn warut a xeeb sa bopp ci jaayante gis nga bayaatul ridwaan jaayante bu bu rëy boobu nga xam ne alquran tudd na ko bayaatul ridwaan booba yonente bi daa génn ak saxaaba yi ngir ngir umra ji bañ demee ba ca yoon wa yéefar yi ne leen du ngeen dugg Makka ren xanaa beneen yoon mu yebal Seydina Ousmane ngir xamal ko ne ko ñëwul ngir xare ñu ñu téye Ousmane ne ko yow boo bëggee wër wëral boo bëggut waaye yonente bi du mën a du ñëw Usmaan ne leen bu yonente bi wóorut man soxlawu ma wóorul kaaba gis nga positif bu saxaaba yi moom ko defee nag gannaaw bi ñu siiwal na rey naa na Usmaan naa Usmaan yonente bi dajale saxaaba yëpp nag ne leen faawu nag dangeen di jaayante wax ne li ma junneeg ñeenti téeméer ci saxaaba ña nga fawoon woon ca ron garab ga jaayante leen ngir bu ñu rayee Usmaan moom nun ñëpp bakkan yi taxuñ woon a jóg xare taxuñoo jóg waaye nag kaw faawu xare du mën a ñàkk saxaaba yëpp jaayante ak ñoom ci bu jare ñu ñàkk seen bakkan ñu jaay seen bakkan seen borom sunu borom ci la leen gërëmee ba fesal ko suratul fatha laqad radiyallahu anil muminina id yubayi'unaka taxta shajarati fa alima ma fi qulubihim kon jaayante lu saxla ci alquran sunu borom gis nga ci alquran mu ne jënd na jullit ñi dañ koo jaay seen alal ak seeni bakkan mu fay leen ko aljanna inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna topp ko ba ca waman naw faa bi ahdi sa ñablaat danaa waxoon ne radiallahu loolu moo ñu dugal waman naw faa bi ahdi ak képp ku matal la nga jaayante kon ba àddunay tukki jullit bu matal la nga jaayante rek yaa ngi ci biir loolu moo tax sa ñablaat tegoon ca ne nit ki lu mu jaay yaakaar a jot ca njëgg moomatu ko ne suñ lépp sëñ tubaa moom kon waratuñoo toppati suñu xel waaye ndigalu sëñ tubaa lañu war di topp ci lu mu mën a doon rawatina nag ndaw ñi ndaw ñi gis nga sëñ sëñ Muntaxa tabaski gi discours bi mu ci def lépp daanaka ci ndaw ñi la ko jëmale waaye ndaw yi tuubaa bu ñu ndawee mooy ndaw yi murit yi ndax murit fu mu nekkee rek ak Touba la war a doon la tënk la tënk ndaw yi Touba rek moo war a tënk murit fu mën a ne te gis nga ne gis nga ne te murit yi ndaw ñi sëñ Touba soññoon na leen ci ñu topp njubugu lislaam gi te nee naa lislaam ma ba principe bi moo jaayante yaa ayyuha sibyaanu la tashtaxilu anil huda wa bil ulumi ishtaxilu pour njubugul lislaam ko ko Tuubaa ne woon na bu leen am soxla ci ludul moom kon àdduna ak yëngu yeeg topp sa xel loolu tere woon na ko ndaw ñi bu bu yàgg sëñ sëñ sëñ sëñ te ndaw dafa am doole ci lislaam am doole ci yoonu murit fi ne boo déggee kibaaru saxaaba wala kibaarul muridiin da ngay defee ne ay boroom juróom-ñaar fukki at la ñoo te fekk suñuy mag lañ ñoom rek waaye seen jamono ay ndaw lañu xoolal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko bañ ko yàlla yónni ñeen fukki at la am 40 te booba ñu ëpp ci ña ko topp moo leen mag ñëpp moo leen mag kon ay ndaw lañu woon gis nga Seydina yi ba ñu yónnee yonente bu fukki at la am xare Badar ak njàmbaar gam ca def lépp ñaar fukki at ak juróom la am vingt-cinq gis nga keroog xare Xaybar Xaybar raaya wa darapo ba yonente bi boobu ndax booba yahuud yi dañ leen a sonal tata ji jiñ nekk tëju fa mënuñ mënuñ ko mënuñ ko ubbi ñu am fay fan yonente bi ne suba danaa jox raayee koo xam ne yàlla dana ko bëgg ko yonentam muy ko bëgg yàlla ko yonentam fekk Seydina Ali la la la lay wax moom la moom la war a jox raaye wa moom Seydina Ali te booba fanweeri at ci lay toll 30 nga xam ne moo ubbi raaye wa raay yahud bu mag booba ca xaybar di merxab lépp weesuwul 30 ans machahid yëpp mu ànd ak yonente bi xare yëpp yëpp mu ànd ko yonente bi daanaka te te te te te amul fan amul amul ñeen fukki at amul ñeen fukki at yëpp ndax ba fa yonente bi jógee booba euh, ci ci fanweer at ak ñett la toll fanweer at ak ñett ak njàmbaar gi mu def ba fi mu ne nii taarixul islam sa ginaaw lay dugg ci non dama ko joxe misaal muy kenn waaye mën nga cee jël mbooloo ci saxaaba yi ñëpp foofu lañu toll woon gis nga euh, yoonu murid ni ma la ko waxee dañ naan kibaarul muridin magi murid waaye ñëpp ndaw la ñu woon daanaka sëñ Tuubaa ba muy dem ci gi ñeen fukki atam tuuti la topp daanaka ñeen fukki at ñeen fukki at la toll moom it li ma la waxoon ci yonent bañ ko yónni 40 ans te moom it moom sëñ Tuubaa ñi ëpp ñi ko toppoon ñëpp moo leen mag kon ñoom ñëpp ay ndaw ay ay ndaw la woon gis nga ne maam Thierno ba mu koy wuutu gannaawam fanweeri at rek la am fanweeri at gis nga sëñ Mourou Moustapha bi mu koy wuutu gannaaw bi mu ñibbisee Tuubaa ci ñeen fukki at lay toll te moom mag ñett na tax moom ñoom ñëpp ay rakkam lañ kon ñoom ñëpp ay ndaw sëñ Bachiru fanweeri at tuuti la teg boobu te gis nga lim liggéey ci yoon wi kon loolu lépp li muy wane rek mooy ndaw ñi nañoo xam seen masuliya seen responsabilité nañ ko xam waaye nag nañ ko nañ ko jëmee yàlla te mooy jëmee ko àllaaxira sëñ Tuubaa ci loolu la woote woon ndax euh, àllaaxira wujju àdduna la ko ko ko ko ko koo jéng jëm ci wujjam rek wan nga ko gannaaw moo tax ba muy tagg saxaaba yi ca naxaju id waajahu darrata bi talaaqi dañoo jublu àllaaxira wut jëm di àdduna dañ koo fas a ñoom loolu mooy yoonu murit Sëñ Tuubaa allaaha wa daaral aaxira loolu rek moom ci ci la woote woon kon nag lépp loo yoo yëngu ci àdduna yóbbal la war a doon ëllëg ci yow murit bi ab yóbbal noonu la ko Sëñ Tuubaa zaadi lil jinaan zaadana lil wax na ko ay yooni yoon loolu lu mel noonu la jublu woon sunu kilifa gii fi nekk Sëriñ Muntaxa doy na sëkk royokaay ci kenn ko ne war di yeesal ak jaayanteem di ko topp di ko diglu doy na ci doy na ci royukaay ndax moom waxoon na ñëpp di ko dégg sama kilifa dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sama bopp dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sama bopp loolu la waxoon waaye lam ca teg dafa am solo mooy def ne gisuma lum ma wàññi loolu la ca teg gisuma lu ma wàññi te defe naa ñëpp xam nañ ne wàññiwu ko dara kon topp ka nga war a topp bàyyee ko sa bopp bàyyee ko boppam waaye topp nit jaayanteeg moom ba noppi di wana ne euh, di war a ne lii la war a def ak lii la war a wax ak wurta def lii wurta wax lii loolu du jaayante gu dëggu gis nga ba muy jaay yonante bi mu jaayanteeg jigéen ña ñoom soxna Hind bint borom ne ko bu jigéen ñi ñëwee di jaayanteeg ñaw ala jaayanteeg yow ala àla yushrikna billahi shay'an li mel ko juróom benn bu ñu sàcc bu ñu njaalo bu ñu bu ñu bu ñu am doom ci seeni borom kër te fekk juruñ leen ñu jiñ ko seeni borom kër buñ la buñ moy sa ndigal buñ nangoo loolu nga xam duñ mooy sa ndigal loo leen digal ñu def ko loo leen tere ñu bàyyi ko dañ lay bàyyi ak seen bopp buñ nangoo loolu fa baayaxunna nangul leen seenu jaayante kon loolu la nga ciy dégg mooy boo jaayante te doo jëfee ndigal doo bàyyi tere kenn nangulu loo sa jaayante loolu du jaayante ku dégg kon kon sëñ Muntaxa doy na sëkk misaal ci loolu noonu la defoon ak kilifaam gis nga sëñ sëñ sëriñ Baara Fadilu ba mu fi nekkee ba mu ñu soog a wutu sëñ Tuubaa rek la mu waxoon mooy sëñ Muntaxa toog ci wetam wax ko ne sunu kilifa fokk ñu warmaal ko fokk ñu aar ko fokk ñu jëfee ndigalam noonu la ko waxee woon loolu mooy jaayante ku déggu te noonu la àndee woon ak moom àndee woon ak noonu seex Cheikh Sidil Muxtaar wax na wax jur rëy ci Cheikh Sidil Muxtaar jamonoom dafa wane woon ne bu wootee woonub xare sëñ Muntaxa moo wax ne sëñ Sidil Muxtaar wane ne bu wootee woonub xare daldi nag kuy gaaw a daanu lay doon wala ma faagaagal ñu bari xam gën a xare moom amul lu ko gën a tàng lu ko gën a tàng amul kon nag loolu la muy tekki rek mooy sa kilifa fépp fu la jëm loo jëm fa bu tuddoo xare mooy la ci des lépp gën a sedd xare kon kon loolu waxaale ko kon loolu nag mooy mooy mooy yoon wa waxoon na ko nag waxoon na ndaw ñëpp ne leen mooy yëngu yooyu fi amoon xool leen ci man bu ngeen bëggee jariñoo xool ci moom mooy nii mu mel lii ma la wax rek digganteem ak kili ña nga xam ne ñoom la tudd ay kilifaam xool leen ci man bu ngeen bëggee jariñu ku bëgg bu ngeen bëggee jariñu àdduna ak àllaaxira ne ku bëggat a jariñu nag yaa xam noonu la ko waxee woon waaye ci ci tawaadu am ci toroxloom ak boroomam ak ci waayafam ak ñàkk ñàkk a yéeg dara ci boppam am na bis wax ji ñu ci waxtaan ba ma koy fàttali. naan ko la nga waxoon de bu ci ñëpp tënku woon rek xool leen ci man jooju mu ne ah mu ne man loolu da xanaa sax dama ko waxee woon xaal waaye loolu sax nuñ koy waxee xawul leen ci ma nu ko nit di waxee nga loolu sax dafay na ne moom waru ko wax kon daal ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax noonu ñëpp daal nañu nañu gën a tënkuwaat ci loolu maa ngi ci woo sama bopp di ci wow euh, mbokki taalibe yi murid yi yëpp rawatina ndaw ñi nag ndaw ñi ñuy gën a yeesal seen ak seenu jaayante te te tey jëf ci jëfi ndigal bàyyi tere loolu mooy tax jaayante ga dëggu yàlla na ko sunu borom yàlla na ko sunu borom defal te li ñu yaakaar ci sëriñ bi lépp mu ñu teg ci sunu loxo àdduna ak alaaxira te sunu boroom gërëm seenub liggéey gërëm loo sëriñ bi seenub liggéey yéen itam ngeen ngeen ngeen daje ak taw fee xam na mu dajeeg taw fee ci ci ab liggéeyam na mu ko waxee woon raafaqtu fi xidmati tawfiqa xaaliqina wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu